ay ñaanal suñu xalif général de Mouride mu yàgg fi lool te gën a wér sëñ Muntaxa Bachir waaw di ñaanal sëñ Sidi Moxtaar sëriñ Touba yokk ay leeram ñoo ngi santaat bu baax moom di wax ni rekk bëgg nañu lool santaat nañu sëriñ Béthio ci bësam bi nga xam ni bés bii nga xam ne da ciy sant Serigne Saliou Mbacke bésam yépp kat ak cant la ci moom waaye bis bii nag day bisug daje gi di 17 avril 1946 fataset tey di 17 avril 2019 fii ci dëkkam bii ji Madinatu mu fi sant Serigne Saliou Mbacke nga xam ne dañ naan tey jiikat kat ma nga fa Bordeaux di fa sant Serigne Saliou waaye tey fii it mu ngi fii ci màddina di fi sant sëriñ Saliou waaye mu ngi fépp it di fa sant sëriñ Saliou ndax li ko waral mooy moom day fépp ci àdduna am na fa daaray sant Serigne Saliou Mbacke. waa kër sëriñ Béthio foo dem ci àdduna fekk fa daara ji kon tey jii dey bis boo xamante ni yemul rek fii ci fii ci Madinatu wala fa Bordeaux waaye fépp la fii ba Chine ñoo ngay sant sëriñ saal Saliou Mbacké kon ñoo ngi santaat bu baax ci daje bi di bëgg lool ci mbooleem tilifa yi fi wax ak ñi bëgg wax te muy mel ni jotaay bi xat lool ñoo ngi sant bu baax ci ñëwin bi ci wuysi bi ndax kat euh, bu leen neexoon kat ne sëriñ Béthio ma nga Bordeaux kon xam naa ni ñëw bi du ko mate waaye nag moom daa wuutewul dara kon ñoo ngi sant ci ànd bii ngeen ñëw àndee ko ñun ñu santale ko sëriñ saaliwu moom dey bëgg na lool ndax moom day bu sañoon ñépp jariñu ci sëriñ saaliwu ndax sëriñ saaliwu mooy njariñ li mooy njariñ li ànd ak lor li loolee sëriñ Tuubaa wax ne sama loxo bu tuut bii bu ëllëgee ku mu seddul da ngay fande loxoom boobee mooy loxo boobu bii di loxo sëriñ Saliou waaye ba tey jógu fi ndax mooy sëñ Béthio kon mooy loxo bi nga xam ni mooy sëddale loolu nag ay dogal la ndax sëriñ Béthio kat yàgg nañoo wax ni kat ne moom cosaanoowul ak cëriñ day doom maamu kulli ak maam Bambi Caam ne moom cosaanoowul ak cëriñ waaye nag sëriñ Tuubaa sañ-sañ la sëriñ Tuubaa coobare la moom tënkuwul moom lu ko soob lay def waaw kon sëriñ Béthio day sëriñ saaliwu sëriñ saaliwu mii ngi naan doomi sëriñ tuubaa ji te ndekete yoo mooy sëriñ tuubaa ndax kat sëriñ tuubaa moo ko bind moo bind ni mooy saaliwu teyit fii ñu toll ci jamono ah loolu nag ñu bari dégg nañ ko walla yamuñu ci dégg ko bu ñu yëree téere yi jàng nañ ko sëriñ Touba ko wax ne mooy saaliwu sëriñ Saaliw motti li yéenem kon bu dee moom Serigne Touba ci kaalaam gi di mu ba mu njëkk mi moo yeesal sunna Muhammad waaye xàll yoonu murit jël mag ñi def ci ñoom te wax naa ko tey ci suba bu ñu ne mag ñi bu ñu tuddee làmp Fall Baabul Muridina moom mel nañ tudd nañ ñépp kon bu yeesalee mbubbam sëriñ saaliw moom sëriñ Touba ne may saaliwu nga xam ne dane woon ku sukkuraam jébbalu sa fa xesutu om mooy àjjana sëriñ Saaliw feeñ daldi yeesal yoonu murit yemu ca kon li mu yeesal ràpp na te it moo ko moom ndax mbubb boo ko moomul àbb ko sañoo koo cuub kon day boroom yoon wi waaye yamu ca dafa laaj ndaw ñi dana jox leen ma ndaw ñi ma def ci ñoom la Sëriñ Tuubaa daan def ca mag ña daal tëj donte yelloowu ko ma barkeeloo ko ndekete yoo moo ko yelloo ndax ki jël Sëriñ Tuubaa def ca mag ña def ko ci ndaw ñi te ne barkeelu la koo koy Sëriñ Tuubaa mooy dëgg-dëgg Sëriñ Tuubaa kookee nag moom kooki bi mu waxee ba mu waxee loolu yamu ca ndax seexal gi def ci sëriñ Béthio loolee ñu wax ak ceex moo jiitu woote gi mu wootee ci yeesal yoonu murit ak def ci ndaw ñi la sëriñ Touba defoon ca mag ña te boobu dey bi mu koy wax moom sëriñ Saaliwu boobu sëñ Abdou Lahad moo nekk xalif général des Mourides boroom fit wu dëgër wi jàmbaar ju sëriñ Touba jooji te boobu kat kenn teggiwu ko sëñ Abdou moo janoog sëriñ Béthio dal ne ko yàlla sama boroom de xamal na ma ne sa xol bii sëriñ Touba ci ne sëriñ Mbacke na ko Mbacke de yaa ngi may gën a dëggal ni sëriñ Saliou mooy sëriñ tuubaa ndax sama xol bi ku dul sëriñ Saliou newu ci mu na ko waaye noppil loolu yaa ko sañ a wax ndax yow lañ ko wax loo waaye yàlla sama boroom weesu naa ak man foofu xamal na ma ni sa cër yii sëriñ Touba lañ ci moñaale te sa deret gi deretu sëriñ Touba ci dox kon ki nga xam ne xolam bi sëriñ Touba ci ne cër yi ñu moo ñaale ci cëri sëriñ Touba yi deret gi deretu sëriñ Touba koo koy kan waaye nag li ko sëriñ Saalu ne yaay man maay yow firi na wax ji kon ñoo ngi santaat bu baax di bëgg lool ci cant gii nga xamante ni sëriñ Béthio mu ngi koy amal at bu jot di ko sant sëriñ Saaliwu te lépp ci mbooloo mi teewe ko te kat ku xool yi yi ni mu demee xam ni wallaay li sëriñ Tuubaa sama tey gu ne day gàcceel sama démb moom de tayam ji feeñ na ci mu nga fa Bordeaux di sant waaye ñu ngi fii di ko santale mu demee nii mu demee ñoo ngi koy sant bu wér te di ko ñaanal mu yàgg jamono te boole ko bu wér waaye di sant bu baax mbooleem njiit yi ci fànn bu ne te di ci jiital président de la république du Sénégal monsieur Macky Sall waaw ndax kat mooy suñu président ab jaam nag li koy noppal mooy nangu dogalub yàlla ku nangu dogal dangay noppalu waaye ku nangul dogal dangay sonn ndax yàlla lu mu dogal jaam tuuti na ci dindi ko kon mooy suñu président wu réew mooy suñu njiitum réew te mu mel ni kat bi ñuy waaj bis bii bind nañu ay lettre ko ci yoon nag muy préfet fépp fu lettre bi war a dugg te muy muy moom ci njiitam dugg na fa mbooleem service yi taxaw tem gendarmerie police sapeur pompier moom mbooleem eaux fore forêt mbooleem secteur yi taxaw tem te ku xool yi fi ni mu demee xam ni kat ah wax dëgg yàlla sant nañu waaw sant nañu lool ndax kat daan nañu taxaw daan nañu taxaw lool loq waaye gii taxawaay nag ah loolu ñun mbooleem cantaakoon yi ak ñi ñu fekk ci seere nañ ko ba tax na ñoo ngi santaat bu baax tey bëgg lool boobaak léegi sonnuñu tàyyiwuñu ak léegi ñu ngi ko ñu ngi ànd ak ñun liggéey bi journaliste yi mbooleem rajo yi ak ci télé yi boobaak léegi ñoo ngi dikk ci nag yee ba ñu ñëwee ba tey jii ñoo ngi sant bu baax mboolem télé yi ak rajo yi fi daje boobaak léegi